Macky Sall ndey ji seex dafay yemale ay goneem te baa gënale waxtu mu jógey dënale seet ca buur ba leen lëkkale